saafara mm-hmm. voilà mu ngi noonu moom la président dina euh, def déclaration de presse bu 21 heures jotee di ngeen ko mën a am aussi euh, fii nii euh, lu ci tukkee comme ni ko Thioune waxee ci Feeling Dakar TV ñu di ko xaar aussi ci sujet yu bari comme ni ñu ko annoncé mais daf ñuy permettre aussi Thioune ñu daal di plonger directement ci polémique bi nga xamante ne ni am na mu jëm ci mbirum Samba ak nomination moom Samba Ndiaye mi nga xam ne tout récemment ci conseil de ministres bi ñu génn mercredi le président daal dina ko nommé PCA bu SNHLM daal dina def ay critique mu jóge ci ay euh, militants yu Pastef mais aussi ay leaders ñoo xamante ne ni ñu ngi ci biir euh, parti bi jàpp ne moom Samba Ndiaye fi mu nekk sax euh, dañ ko fa war a jëlee Saa Wolof ci yow laa koy njëkkee kaawu Samba Ndiaye. bon kaawu Samba Ndiaye de ñi koy naqarlu am nañ droit naqarlu ko mhm. léegi nag mu des ci ñi ko tabbu. ndax danañ ko tebbi wala moom dana démissionné. Mhm. parce que mbir mi du ay nit bu bokkee fee rek doo ko fal am na ñoo xam ne bokk nañ ci wàllu géele fare woon nañ fa tabbu nañ leen te kenn waxul. Mhm. yaakaar naa ñetti nomination yi mu njëkk a nominé am na ci kenn koo xam ne ci Macky Sall doon liggéeyal am na fi ñeneen ñoo xam ne nommé nañ leen te gars yi xamoon nañ ne jege nañ régime bële te coow jubut li gars yi di bañ nag mooy bañuñu ku leen bañ a tabb boo xoolee projet bi. waaye doo tabb koo xam ne dafa taxoon yoo yor làmmiñam wax li mu wax muy tege parce que taxé woon nit ñi da ay rebelle taxé woon nit ñi da ay sa euh, force occulte taxé nangam nangam mu fis am ay vidéo yu koy illustré buñ demee ba di la tabb bañ xam nit ñi sañ nañoo feeñal seen naqar kenn ku ci nekk. Mm-hmm. léegi nag yow yaay déglu sa peuple wala yaay déglu ñi la faloon parce mbir mi du question. que ñu maa ngi dégg am ñoo xam ne nee nañ bu fekkee ne Sonko dafa euh, euh, nommé wala nangam nangam non Sonko nommé wul day proposé comme tout comme ministre Balla Moussa Balla Fafana bu muy proposé. problème tamit mooy jëfu ancien système bi it mi ngi bëgg a sonal Moussa Balla bii mooy ñaari yoon lan mooy jubluwaay bi ñoo xam ne carrément taxawoon nañ. du waa APR yëpp meloon ni am na waa APR yoo xam ne ña nga fa woon mais am na débat bas étage wala baa niveau yoo xam ne nii mosoo leen ci dégg ku mel ni Mame Boye Diaw da nga koy tudd rek mais bari na ci ay morom tey ñooñu boo leen jëloon ak seen compétence mën naa am ñu mu naqari wala nangam mais bu ñu ko waxee du légitime su may wax nag mooy ci côté ñi nga xam ne dañu xeexoon pour benn affaire léegi nag boo xeexee ba pare république la. kum neex mu xooloon xam ne kii saaga na la nangam nangam teewul mu def ko fa. Mhm. mais kooku it na bàyyi xel ne li ko fa teg dafa amoon ñu naq am lu leen naqari te li leen naqari woon ñu mel ni genre sàmba yi la. léegi nag boo ko tegee yow yaay xool parce que kooku bu fekkee ne tey loolu mën naa tax ëllëg dootu la fi teg yow tamit bu la neexee li la kooku mën a apporter comme ni politiciens yi daan def parce que kii am na mbooloo malgré mu neex leen mu naqari leen dama koy teg. mais yow yaay xool mais bu fekkee ne teg nañ ko ci côté euh, république rek ni muy demee yoonu kenn wala waxi kenn mën naa tax nga ban cee teg hmm. mais république yi dàqu nga nomee nit xam ne nit ñi d'accorduñ ci wala nangam naa nga teg ko fa tegaat feneen soit hmm. na compétent rek loolu mooy wax ci loolu nag coow la loo xam ne kenn mënta bañal waa projet bi laay wax du ma sax wax waa PASTEF lii même ay ay ay ay apériste ay ñeneen a ñeneen dama doon dégg ñu koy ñu koy wax même ñoom Moustapha Diakhaté nee na lenn képp laa d'accord ak Ousmane Sonko mooy fexe ba ñi doon nekkoon ci ñun mën a xëy dem ci ñoom du mën a nekk bu ko defee kenn ku nekk da nga toog fa nga toog gis nga faatu dañoo war a wax ku nekk na nga toog fa nga toogoon ba sa pour yow loolu mooy dëgg nit boo ko contrer kii ko nangam ak nangam affaire yu demee noonu xanaa mu doon post boo xam ne appel à la la man waa ji jour bi ma njëkkee ne ko nii gis ko joomaay président keroog bi ñu taxawee damay naan ndax moom la wala du moom. Ah, mais léegi ci appel à la candidature boobu tey bu ñu ci demoon tey. Ah. est-ce que loolu tamit euh, bu fekkee ne moom ku ci mel ni Samba Ndiaye wala keneen. am ci euh, poste yi bu boobaa naka la ñuy def. te bu loolu dafay nekk loo xam ne yoon lay nekk. loolu mënoo ci dara. waaw kon est-ce nii euh, jox na trop peut-être. déedéet ci des. noo faatu man sànq xam nga man suis légaliste bi nga waxee Bougane sànq. wuute naa ceeg ñu bëri xalaat dama ne li nga am muy sa droit du mu la ko bañal faatu man ab imaam mënoon nañ koo fal fii nga ne imaam bii mas na maa doxaan wala wax ma bu may doxaan doxaan mooy wax ñàkk fayda parce que mas naa wax nangam ak nangam nit ñi seen jëf yi tey parce que loolu dafa war a tax kenn ku ci nekk tënk say kàddu loo bañ-bañ nit ki nga bañ a yegg fenn fii ñi loolu naqari faatu bul taxaw fii ne nag amuñ droit manifester ko c'est la démocratie fal nañu nit nga ne kii warul tan nekk fii parce que nangam ak nangam ak nangam léegi nag ñi nekk ci kuje gi bu leen neexee ñu ne waaw nii lañ mel bay wax sax maa gis ñu naan waaw yéen da ngeen a manqué respect joomaay parce que joomaay fa non joomaay buy def décret day fekk. ah mais loolu aussi bu ñu gisee ñi nga xam ne dañ leen fal. fal keneen ku ci mel ni Fatick <coughs> Keita ni mu ci waxee euh, ku ci euh, mel ni euh, ki nga xamante ne moo di DG bu port ñu ah. fal la fal keneen ngeen ko dindil ki nga fal. waaw mais parce que déggoo li ma la wax xam nga tey loolu ci côté seen parti la wala seen projet la bu ñu teg fii parce que dafa am ñoo xam ne dañ doon xeex. ñàkk ñoo contre procès bi xam man nga contre mais yegg ci di leen accuser mais Fadilou Keita ku ko addi accuser de terroriste de raykati nit de nangam ak nangam mais bu ñu xëyee fal la sañ naa wax ne kii tamit amul droit parce que fenkat la parce que li ma accusé woon du dëgg moo accusé woon Diomaye ne terroriste la mu accusé Ousmane Sonko ne nangam ak nangam la. moom kan moo ko proposé Diomaye. moom Moussa Balla Fafana mooy ministre boobu te bii mooy deuxième fois. muy def genre kii. muy def genre yu mel nii. Hmm. gars yi du problème ku nekkoon APR wala koo xam ne nangam nag du loolu. problème bi mooy ku jëloon sa kaddu taxé leen de terroriste taxé leen de nangam ak nangam ak nangam ba pare loolu sax c'est pas logique xam nga nit ki comme soit da nga doon fen li nga doon wax du dëgg. Hmm. kon danga ko doon wax pour pour yàqal leen rek fenn la woon. parce que ñu mel noonu yow nan ngay demaatee bay ñëwaat ci ñoom. Mm-hmm. d'accord léegi euh, jëwrin euh, ci loolu. non bon xam nga tamit politique dafa am il y côté travail mais il y côté moral il y a aussi le côté social ah parce que fii ñoom mënuñu gis. toléré koo xamante ni démb daf leen doon saaga di traité de rebelle. mais réew mi du réewu sénégalais yëpp. on parle des sénégalais Sénégal la ñuy wax mais pas ay Pastef. mais am na yeneen sénégalais. ñoom ñu ngi ci biir sénégalais mais. ñu waaw mm-hmm. waaw li mu doon réewum Sénégal moo tax nit ñi sañ koo naqarlu. waaw de toute façon mooy ñoom ñi ko fal ñoom ñoo tax li tax ñu fal ñoom ñoo xam ne li tax ñu fal ko de toute façon mooy am na des voix plus autorisées que que moi yoo xamante ne wax nañ ci. parce que lu ci demee ni Guy Marius Sagna lu ci demee ni. wax na ci euh, Fadilou Keita wax na ci le DG de port. wax na ci Abass Fall maa ngi dégg ma ne day wote pétition. donc man bu ma doon lëkkalaa damay démissionné. man de dégg naa sax démissionné na de. yombal yombal carte gi Diomaye ko wax. parce que fi ma ko dégg et puis Balla Moussa Fofana il faut qu'il fasse attention comme li Saa Wolof c'est pas la première fois il faut qu'il fasse attention ko parce que tamit affaire bi dañu nekk ci benn renversement de tendance quoi dañu bëgg léegi les politiques di nekk ay nit yoo xamante ne ay nit yu responsable la ñuy nekk yoo xamante ne yu ànd parce que Fatou yow mën nañu nekk ay rival mm-hmm. mais man mais du duñu ay ennemi waaw mm-hmm. <laughs> comprendre mm-hmm. mais boo ma jàppee tey jii au delà de la au nom de la politique nga jàpp ma saaga ma xas ma tam taxé la accusé la de terroriste. raykatu nit de terroriste de criminel violeur nangam nangam waaw yooyu bu subaa nga mën a ñëw. bokk ak bokk ak man ndam li waaw kooku tamit moom moo ñëw bokk coalition Diomaye président. waaw donc foofu moom foofu lenn xam na yoo xam ne mën naa SAP. loolu moo jiitu bi. non Fatou Fatou Fatou am na loo xam ne SAP que ni waa Pastef yi. <laughs> Mhm. Euh, Diomaye président wala ñi nga xamante ni ñooy def transhumant di ñëw waruñu woon accepté ñëpp xam nga Diomaye président. c'était que pour les présidents sur mm-hmm. la présidentielle moo doon mm-hmm. Diomaye président mais Diomaye président n'existe plus léegi fi mu toll nii parce que boo gisee ci élection législative yi da nga gis ne Sonko lu mu wax dafa leer bannière Pastef la ñuy demee mm-hmm. léegi Diomaye président fal nañ Diomaye jeex na tu vois te boo ñoom bu ñu amoon jom sax bu ñu amoon jom ak li moom ci wàllu boppam sàmm Ndiaye bu amoon jom dëkk ak li mu wax gars yi yëpp waruñ ñëw bokkaat Diomaye Diomaye président Diomaye président waru ko waru ko parce que Diomaye mi mi ko jiite dèjà yow giñ ko ko et puis mangamaga njariñu dëkk bi njariñu dëkk bi ok compétence yi mën nañ ko xool mais morale yi tamit dañ ko war a xool de voilà mm-hmm. voilà ah ñi ko fal xool xooluñ loolu. ah ñu ñu war leen ko ci ban façon la ñuy falee eh, ñu war leen ko non xam nga lii la lii la bu fekkee ni bu fekkee ni tey jii eh, xam gis nañ fi tey jii ni ci demee nii boo jëloon tey jii Assane Diouf le cas de Assane Diouf ba mu toogee barki démb di woowaat Macky Sall. waaw ah. ne population ñu bëri ñu ne comprend pas ah. xam ngi noonu donc euh, Barthélémy Dias ak Ousmane Sonko. la mooy seen problème. barki démb ñoo àndoon sama doomu ndey sama doomu ndey ba euh, démb euh, dina dee ci kaso bi tey ay noonu walla ay rival wala ay doo comprendre moral ci la bokk quoi ah. cela veut pas dire que ne politique mooy loo xamante ne faatu lu noble la. Mm-hmm. politique du yëfu baadoo la. mais nit ñi dañ ko bëgg def yëfi baadoo la et puis dafa am ñoo xamante ne Sénégal ba ñu juddoo ba léegi politique rek mooy seen liggéey. amuñ métier. d' accord Thioune euh, ci loolu euh, président daal di jël euh, décret fal nit ñu taxaw benn pression. Mm-hmm. bëgg a taxaw ne na ko dindi. ci ñaari kaay bu fekkee ne bàyyi na ko fa mais aussi mm-hmm. bu fekkee ne jëlee na ko fa lan la mën a def ci kàddu président wala signature am comme ni ñu koy waxee. mën naa la dégg mën naa la mën naa la wax benn affaire ñun ñëpp ñu dégloo ragal.